ربي بما يسرع أزغانا قد فجاء بجاه أدل لله قد جاء ربي بما يزرع أزغانا قد فجاء بجاه أدل لله قد جاء ربي بما يزرع رجا بجار أدل من لله غلجا حمد لرب القدر من لا شريك له وزاري اليوم وزاري الملا محمد الله الله في أبد عليه في كل بغير أرغو إلا بالذي أما مواهبه لجولة الخلق ما يدار من برا ناجيته جلا ومن وكرمه تكريم غد وكل من الخلف رحمن قبل جميع الخلق رحمة يهني عني سليما قرآن وقرآن هدو مدى المصطفى عن كل ما سدد والله من قضايا من جاد وبدا santaat bu baax sëriñ Saliou di santaat bu baax sëriñ Saliou di santaat bu baax Serigne Saliou liggéey bii nga xamante ni suñu sang bu tedd bi sëñ sëñ Mourtala moom sëriñ Saliou ginnaaw bi mu jëlee liggéey bi ñun am taw féexu ànd ak moom di teew ci liggéey bi depuis bi mu tàmbalee liggéey bi ba fi mu yàlla tey ji maanaam mosu ñoo wutee liggéey bi ñun nag dañoo bokk ci ñi nga xamante ni ñoo ŋànk wàllu organisation bi depuis ba sëñ bi jëlee liggéey bi ba tey ji ñu ànd koog moom di ñaan yàlla sunu borom mbooleem murid yi fi teew yëpp ak taalibe yi fi teew yëpp ci ndigalu sëriñ bi ñu fas yéenee teew fii ngir barke ngir ngir jëf jëfe liggéey bi mu yegg ak jàmm ak salaam ba kenn ku nekk jële fi njariñ ak tawféex bi nga xamante ni bërëb bi attan ndax sëriñ bi day xamaloon nañ ne liggéey bii nga xam ne ni moom lañuy liggéey ci tool lu ci waay bëgg na ko ci fas xam ne liggéey bi attan na ko barke sëñ Saliou ndax moo ñu fi indi nañ ko ba daayira si Kambaaw la ñu yore mu tuddee ñu Misaawu Nasri moom ci boppam moo ñu utal tur daayira bi am na ñaar fukki at ak boobu ba léegi ñoo ngi yëngu ci daayira bi ba ñu njëkkee sanc daayira bi dem di sàkku tur ci moom moo ñu utal tur tuddee ko Miftaawu Nasri Touba si Kambaaw jox ñu keesu warga ni maa ngi ci biir maa ngi ci biir daayira bi boobu ba léegi ñoo ngi jàppoo ànd di bokk di liggéey di ci yëngu di ne fépp fu nu woote rek ñoo nga fa te yokkute la ci ñun yokku yokkute la ci ñun di di nag di gën a yokku rek daayira bi gën a dëgër jëm ca kanam ca kaw ca kanam yeneen daa soxna yi ñu ngi ci ñu ngi ca ca kër ga di di togg xéewali yéen ñaa ngi ni ci biir tool yi waaw ñu ngi jógee Dakar daayira neuf bi Dakar si Cap Foire foofu la jógee waaw waaw comme niñ koy defee saa su nekk rek ab murit moom ci ndigal lay wéy ci ndigal lañ ñëw at bu jot ñuy xaar waxtu wi di euh, toolu Serigne Mourtala ibnu Serigne Saliou Mbacké di suñu la saa yu woote ci toolam yi rek muy daaru alim bii ñu ñëw nii dañ ko fii faral di teewal daal comme ni ko ab taalibe di defal ab sëriñam waaw ah, mooy waral suñu teewaay fii nii ah waaw waaw kase kase kase la waaw ndaxte euh, taarix lu yàgg la muy woot boo xam ne woy juróom sëriñ Saliou Mbacké moo ko daan def muri yëpp di bawoo fenn fu nekk ci àddina bi fenn fu nekk ci senegal daan teew fii ci barab bi ak yeneen bërëb yu mel ni mu yeneen daara yi bi jamono di dox ba euh, ab leeram Cheikh Mouhamadul Moutada Mbacke di woote moo war a sunu teewaay fii nii te njariñ képp képp képp lañ ci gis Abdoulahi xel ko moom ñëpp xam nañu moom njariñ kese ko ndaxte euh, fàkkub sunu boroom la moom. waaw waaw wax dëgg yàlla moom ak yokkute kase kase kase la ndaxte ci taarix moom ñëpp xam nañ li ci Serigne Saliou Mbacke wax ci ngoontum xel kom kase. waaw maam ngontu xel comme rek muy kii moom daa day mel ne daal dafa war waxuma la taalibe waaye képp kuy julit war a mën a teew fii ndax fi njariñ kase la fi ñëw ren balaa ëllëg da gis yokkute goo xam ni moom maam da di di dina fës loolu daal maanaam waaw dina dina leer waaw waaw leen ci soññ bu baax a baax fii moom daa nekk foo xam ne ak murit li ma ko li ma ko waxee sànq rek rawatina ab julit da nga fi war a jaar ngir tarbiya sa bopp waaw maanaam dund fi leneen loo xam ne mosoo ko dund muy liggéeyal nitu nitu yàlla tarbiya sa bopp xam ni nekk ci àll bii nii nga nga dund benn benn social sa diggante ak mbokki taalibe yoo xam ne amaana mos leen a gisante mais fu ngeen rek day am leneen lu muy jur seen diggante daal boo delloo fi nga jóge woon di nga xam ne maam di nga xam yow nan ngay doxalee ndax fii taalibe rek rek rek moo fi nekk ñëpp doon benn ñu dañu jógee Ziguinchor ñu jógee Saint-Louis ñu juge fu nekk ci àddina bi Dakar Mbour Louga fépp la ñu jógee ngir daje fii nii da nga fiy saafonteeg sa mbokk taalibe wax mosul leen a gisante te da ngeen di dellu maanaam bëri bi ngeen jóge woon am benn relation boo xam ne daal maa da nga xam ne fii rek la la mën a baawoo daal. Mhm. asalaamaaleykum mbokki jullit yi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara bu wér a wér a wér a wér waaw man la Saliou Kébé ñu ngi jógee ñu ngi ànd ak jëriñ Abou Sarr ak jëriñ Sidaat waa Mbour it waaw ñun ay xale yu ndaw lañ ñu ñun PSP booy xool booy bëri booy xool ñu ngi sowoo ñëw te te lii nii ñëw liggéey sëñ Tuubaa moo tax ñoo ñu bàyyi lépp lu ñuy def mm-hmm. ñëw fii liggéey quoi waaw di ñaan ñeen saxu leen sëñ bi waa li loo bëgg yoon loolu yëpp ndax ñaanu sëñ bi rek lañ ci gën a faax quoi altami liggéey sëñ Tuubaa parce que liggéey sëñ Tuubaa yombul quoi waaw parce que ñeen yombul nekkee ndaw wala nekk mbuur am say mbir yoo yoo def yàlla xiit la si ay xasida ak affaire yooyu ñeen parce que booy yi nga gis nii yëpp booy xool dañuy kuréel a ñaan xasida bo yi booy yi presque mbuur programme yi mag yëpp presque dañ fay jàng te loolu yombul quoi te booy yëpp booy xool ay taaliba sëñ Mountakha Saliou lañ waaw xam naa ne ñun daal li ñaan daal moom mooy chaque année daal bu ñu fi voilà chaque chaque année daal ñu fi ñëw yàlla meñ ay xéwal yu bëree bëri bëri bëri si kàddu Seydina Mouhamed waaw tey ñaan tamit sëñ Mountakha Saliou lañ lool lool lool tey si kàddu Seydina Mouhamed ndax liggéey sëñ Touba moom jëriñ sa bopp la lépp loo ci def rek sa bopp la nañu góor góor lu ñun ñëpp ñëw liggéeyal sëñ Touba waaw mënuñu koo fay nag mënuñu koo fay bu wér mais nañ góorgóorlu ñëw liggéeyal sëñ Bamba waaw yamanika mulki man jala alxawatim ilqan jami alwara ya qadi rada maqada ma qanna وقلب من دار بجاه عبد الله لله قال جاه